génn jaxase xel mais nit ñi léegi soo matures dañu waxoon ni ñi ñëw leen fii jàmm ak salaam fi nekk fii a personne dañu waxoon ni tey ki manifeste où où. mën nañu mën nañu wax mën nañu wax ne ah, UCAD si boppam it euh, tey suba Parcelles Assainies non nañu arrêté yooyu ma ñoo ñu bëgg a taal réew mi daañu ko digaale man man na bëtuwum daañu ko digaale ak ñoom su fekkente ne xeex démocratie mooy lan da koy am. ci kàddu yu rafet dem ci askan bi askan bi jox la seen baat waaye nag di xeex ko xulu di taal réew mi ngir bëgg a jiite réew kii daa mën a jiite sax chef de quartier man maa sagaru député bi mu am li ko fi dugal ñun xam nañ ko il rien